mais oustaz yi dañoo gis coow li bari na ci wàllum yokk. xam nga ba tey day dellu ci bëgg jigéen rek. Ah, ah. nee nga dangaa bëgg mu jot fu muy joti mm-hmm. ni dama lay la mm-hmm. lu tax ñi moo ko wax ci wolof que sa làkk civilisé wul mm-hmm. sa làkk civilisé awra mooy kanamu nit zakar ñeme woo koo tudd sexe rek ngay wax te boo waxee sexe ci tubaab kenn du ree bizarrement bizarrement kenn du ree sexe rek boo ko waxee kenn du ree mais boo ko tuddee ci olof ñu ne da ngaa réew dubur mooy lan arab la mm-hmm. mais ñeme ko wax ci olof mooy ay taat mooy dubur farju mooy awra jigéen bi ma ko waxee ci arab kenn waxul dara farju nit nag bu demee ba yokk awraam la mu bëgg ci bànneex mu yegg fa amu ko wala ndaw sa la mu bëgg mu yegg fa ci moom mënu faa yegg mu ne ko demal seeti nga yokk ko pour nga yegg fa waxi caaxaan la seetal loolu awra nag dana yokk zakara dana yokk dana yokk di dama dana yokk laaj nu muy yokkoo mu gën ba pare nu muy yokk bu jógee yokk da ngeen maa bu jógul accu eh, nen ne lay doon liir liir bu jógee paalay doon yokk boobu doy ah est-ce que xam nga charia bind na ko unnatu unnatu uh-huh. mooy tuuña ñi seen awra tuuti ba mënta jot su ndaw sa bëggul mën na démissionner su fekkee nag yëg na ne mën nañ koo yokk te bëgg na ko te looloy tax mu mën a sëy ay ca la baas parce que yokk du jaalo mm. du lu bon dafa gàtt nga bëgg mu gudd rek mais est-ce que mën naa gudd man daal li ma ci xam mooy bu jógee gudd jóg gi daal laa xam waaye kantaay yeew amoon na boori teewoon koo fa daan yokkalaate nag ñu ne day yokkal awra ma ne ah baax na moom bu fi yokk gi am na nañ yokk baax na dara nekku ci waaye taxula am doom taxula am daara soo amoon awra su toll nii nga dugal ko ci biir awra jigéen xam nga lu toll nii lu muy doon xam nga mooy onnatu tuuña lu toll nii nga am ko yàlla soxlawul guddaay bi faalewul gàttaay bi ndox mi ci biir la bëgg mu génn soo ko dugalee ci bunt awra ndaw si ndox mi dana génn yegg fañ bëgg léeg-léeg nga sëy jigéen tuur sa mën yu ci kanamam ci awra nga tuur ko ci ti dugaloo sa awra mu roogalaat dugg biir ca awra goor raakool la am déggoo la fi raakool la buy roose biir jigéen ji nisaakum xarsun lakum faatu xarsakum anaa shi'tum nee jigéen tool la tool nag boo ko amee waxtu la neexee rek benn jigéen ne noon papa Iran sama jëkkër daf may séye ba muy génne deret tim nee na ma topp sa ndigalu jëkkër boo ko deful safara nga jëm ma ne ko day fen <laughs> day kàcc xam nga lu ma lay digal mu ne ma ne ko lànkal boo feebaratee bul sëy boo amee ngant bul sëy boo sonnee bul sëy sariya la ko sant lan mooy loolu sëy jigéen ba muy génne ndox deret nga naan ma yàlla mi la yilif da nga koo julli joxoo yàlla àqam bëgg sa jabar jox la àqam joxoo yàlla li mu moom bëgg sa jabar jox la li nga moom xam nga ne da ngay yàlla ne na ku wit xam sa bopp abla nga nele ford bii ma gaare bu ñuul bi bu daan daw day di tik tik tik ñu ñëw Dakar ki ma nekk ci magasin mu may toppatoon mécanicien bu ko dindi ñuy waxtaan ci yu noonu mu ne ma sama montre bi caméra la kii day léegi montre doon na caméra mhm. kër këru seen mhm. day doon day filmer mhm. lam bi nit ki takk day filmer big bi mu yore day filmer suñ yeggee foofu xam nga lu xew léegi-léeg jigéen woo la tonton Iran na nga def ça va naka affaire nag mag danañ ko wax naka affaire kii réewul mat naa ko benn ji ma ne ko yow ñeme ngaa wax sa bàyyi nag affaire yow réewuloo ne ko karaj te fekk na mu ngi toog ak ay moromam wax leen ni Iran damay doxaan di day fen mais bëgg na yàq sa àdduna tontu Iran na nga def sa mu ngi dox naka affaire yi ma ne ko yan affaire soo dee yambar nag yegg nañ ci téléphone yii foo xam ne boo wootee am na bouton bu ñuy bës muy enregistré naka affaire yi mu ngi dox est-ce que mu ngi dëgër nga ne wuy yow góor gi naan ko yaa fi manqué waaye kañ nga fii ñëw mu ne danaa la seet si nga ne ko jox ma jour ma waajal la xarit naan nii waaw baax na xëy na ma ñëw samedi wala dimanche ma ñëwul waay eh. ñu jàpp ko maag yow lu ñuy jàpp lu rëcc ngay xataraayu ba doyal bu pare envoyé la ko nga ne subhanallah nekke man musiba laa doon wax mu wax la ne Sénégal yi fonk nañ la am na ñu la bàyyi xel soo ma joxul temps ci xaalis dinaa woo bëgg Bàmba mu dugal ko ci sitam si di partagé ko ma ab laay Ba suma xarit la mm-hmm. ne ko loo xam ci lii mu ne tee nga koo jox xaalis bi mu wax rek te ñu ñaan site bi ñu bañ ko partager mm-hmm. mais duñ ko partager su ma ko joxee mais suñ bëggaatee xaalis defaat ko. effectivement effectivement. ki filmer lu ñaaw mm. ak ki ñu filmer mu def lu ñaaw mm. ñoo yem. ca munu wuurutul xudu xidrakum yàlla nee na bàyyi leen xel seen bopp ndax jamono wóorutul man toog nañ fii ne Macky jox na ma deux cent millions yéen ñëpp a ko yëg c'est di partagé ko xam nga Iran moom ko daa neex gars joxuma dërëm fifteen bu xëtt joxuma ko seetaan xëtt joxooma ko dara moom maa ngi nekkoon ci këru yaay ab Ablaye mbay gi di ko toppatoo ma feebar dernier téléthon bi ma doon def ci laa feebar ma génn million yi ñu ma wax yépp jox leen ko moom moom kër gi toxu ci ma ni sama feebar benn médecin seet si ma médecin Ndiasse yëkkati cent mille francs jox ma ma waaw sëñ bi man nag am na lu may dégg ñu koy partasi si dine président Macky da laa jox cent millions deux cent ma ne ko dégguma ko nag mais taluma loolu damaa feebar iraa ko ko woo ci defante da nga daw mm. defante kay moom akama cee sawar soo dawul du ma daw boo dawee nag ma réer si que ne ko ci mm. ba ma génnee tomb yàllaa xam fii la tombeel màggal gii ñëw seetaan ngeen ko may dóor rek bañ mujj ma woo ne ma wax xam ne ne joxul joxul la nag doy na may leen da nga naa doyaloon bàyyi leen ba ma doyal pour wax la nit ñi yooyu la ñu yàkkamti yooyu la ñu yàkkamti jël changé ko kole takkale pour lan man yàlla dimbali na ma yàlla bindul ci Sénégal gi koo xam ne jaaxal nga ma amu fi du du benn mbindeef boo xam ne jaaxal nga ma ci senegal man vidéo boo def lu sama yoon dama TikTok yaa xam defal ci leneen yaa xam intéressé wu ma li ma wax moom laa xam li ma def moom laa xam lu ma waxul defuma ko sama yoon newu ci man noonu lay dundee te gis nga lu ma wax ngeen ne lu tax Iran di ko wax boo ñëwee dooraat ko fa xam ngeen ci dara ti dàbbali rek maa tey laa lay wax man juumaguma lu ma wax maa ko tey lu ma wax maa ko tey nañu bàyyi enregistré nit te ngeen ngeen jël émission waxtaanee ko kii atte yedd leen wal ne ni lii rafetul yow mi enregistré nit dootu la wóolu ndax koy waxalati mu ne danga koo bëgg a enregistré yow mi ñu enregistré dootoo wóolu nit ndax kuy waxatee yow nga ne damaa bëgg a kon yéen ñaar ñàkk ngeen confiance yow mi ñu enregistré dootoo wóolu kenn yow mi ko enregistré kenn dootu la wóolu adduna bu tukkee ngoog lu ko fi jar nañ koy waxtaan tëj bi dafa bëri lu yëngu ñu ne tëj nañ jiw lu yëngu ñu ne tëj nañ tëj du faj hmm. li waxtaan waxtaan wuyu li mën a faj tëj du ko faj waxtaan wu yiw lim mën a faj tëj du ko faj kon nañ koy waxtaanee mag ñi noonu lañ daan def dangay juum ñu waxtaanee ko nga tay ko ñu yedd la mais buñ bàyyi démb du sotti fi mu dañuy ruube rek ruube rek lu neex waay def lu neex waaye wax fu neex ñuy ñamax ñamaxi di ruube rek soo gisee Iran benn wax nga seet ko ñoo ko juutalee ba partage ku ne ah bon keneen jël keneen jël yow luy sa yoon ci vie privée Iran lu ci sa yoon aussi yow sa domaine du lii domaine u diini du sa domaine yow sa domaine leen ñàkk jom la hmm. kii ci domaine am jom lay wax yow ci ñàkk jom ngay liggéey luy sa yoon yow kay leemal li nga yorti toog ci rek ah hmm. nit day wax ci domaine am hmm. yaatu kulle di xaqin xaqahu yonent bi nee ne ku ne nañ ko jox lay domaine am mm. jàmm am